mbokki jullit yi mbokki talibe yi nii ngeen ko rek bis bi nga xam moy mooy bisu laylatul xadar bi ñuy waajal ci kër soxna may mun a Mbakke ci ndigalu ki nga xam ne Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbakke Gaynde Fatma mu yàgg wajal waajal bis bi wàccaay wu rëy lool nag ndax at mu nekk bu ñu umee koor mu ñëw Touba fas bis bi ba bis bi kon Serigne Cheikh Abdou Mbakke mu ngi kenn ñu bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn képp koo xam ni wëllëreem nga xaritam nga soppeem nga mu ngi lay woo ci bis bi nga xam ni bisu boppam la mu di ko woote ci ci kër Soxna a Mbàkke buntu Xaadimu Rasuul le 7 juin 2018 fii ci Touba Mosquée السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بك جلديني سيطان أكديني دقلو دي زيارة لسنوك زيارة تي بنتو بكرجي سرين محمد المحفوظ أك سخنة بالي سخنة مانبوسو di ñaari doomi soxna may Maymuna di ñaari taalibi soxna Maymuna yoo xam ne ñoom la soxna si bàyyee liggéey bu réy bu tedd bii mu leen fi bàyyil te yàlla dimbali leen ba ñu saytu ko ba taxawu ko ba mu mel na mu ko bëggee woon wala mu raw ko mm-hmm. loolu itam yàlla yàgg te sëriñ bi nangu lépp xam naa mu ngi mel ne waxtaan ci géej rek kenn ku ne ci doomi sëriñ bi boo bëggee wax ci moom day mel ni ci sëriñ bi ngay wax ndax ñoom amuñu sëñ bi rek am te dafa mel ne sëriñ Touba dafa fab ay jikkoom kenn ku ne ci njaboot goog yi mu fab ci jenn jikko rek rafaatale la ko boo ko defee nag jikko joojee la nit ñi xemmeem ci yow di ko roy ci yow ba kenn ku ca barkeelu dara ci yow rek fu mu mën a nekk di fa mën a doon ab làmp buy leer di leeral gox boobu bépp te yow nga des fa nga ne di doon symbole ci jikko yi Sëriñ Tuubaa jooju mu la jox di ko màndargal boo doon séddale jikko yi danga nga naan nangoo joxe ñam ak fonk alxuraan bokk na ci yu mu jël ci sëriñ bi te sëriñ bi nag yu baaxam dafa bari te du jeex waaye ku ci jël yooyee kenn rawatu la ndax ñaar yooyu lu ci ne dafa am solo sëriñ Mouhamadul Mamoun ne ko muudu Mamoun xam nga jaamu yàlla gi ci jaamu yàlla yi gumu mu ne ko mbàkki bëgg naa ko xam mu ne ko ñëwal ma baaxee la ko jaamu yàlla yëpp ba jaamu yàlla yi jeex joxe moo ci gën mm-hmm. joxe itam li muy bari bari joxe ñam moo ci gën joxe ñam la ca gën mooy nga di ko jox nga di ko def ñam bu baax te bañ ci am xëj seen kon nag digal naa la ko loolu moo taxoon bëggee sëriñ Mourou mel ni meloon ci joxe ñam ndigal la ci am te mm-hmm. suñ bee ko tànnal yoon woowu mm-hmm. ne ko itam yoon wi jëm ci yàlla tol na no no no si bindeef yi niñ toll yoon wi jëm ci yàlla tol na ni mm-hmm. waaye wu ci gën a gàtt gën cee gaaw mooy joxe ñam mm-hmm. waxtaanam yépp mooy sëñ Moodu neewoon na ma nangam mm-hmm. sëñ Fallu neewoon na ma nangam Ahad mi mu gën a ak magam yu baax yépp it ku ci ne jaxasoo na yow euh, xol nga ko defoon sa doomi sëriñ nga ko defoon boo amee loola ñor dëgg it da ngay jàpp ne boo gisee soxna boo ko tàllalee say roxo bu ñaanee rek nga am loola. ndax mujj gim la mujj ci Sëriñ Tuubaa. ba ci guddig laylatul xadr gi nga xam ne moom la fi Sëriñ Souhaïbou bu mujjee guddi googu ci fajar la Sëriñ Souhaïbou bu dem. lam ko yónnee ci gileem gi ñu reyoon ci ay deux heures de matin suñ fa suñ fàllu Souhaïbou bi mën na la ko wax suñ Souhaïbou bu wax na ci ak moom. ci teraanga jooju. waaw yéem ko lool waxtaan ak moom soxna may lu yaatu. te ci fajar la dem nga xam ne kon kenn ku ne ci ñoom man ngaa wax ne yóbbaale na ngërëmul soxna may door dem ma dégg ci bis sëñ Abdul Xaadir mi nga xam ne ku amoon ci moom cër la ku ko fonkoon la ku ko bëggoon la ku ko ñaawantu la ba ñëpp xam loolu bis mu wax ci lu yéeme mu ne man de dañ ma awoon bis ci gént ne Sëriñ Tuubaa soxna may mu ne de lu mu nekk ànd na jaak Sëriñ Tuubaa te ne xam na ni ñoom. au moins ñoom te point de départ ñu waxee bakkan. Mm-hmm. muy jëmm joo xam ne xetti li ne mboolem génération bi tolloog jamonoom ndax gën na leen woon kuy sëñ Tuubaa te liggéey loo na leen ci sëñ Tuubaa. Mm-hmm. Mm-hmm. rawatina sëti sëñ Tuubaa ndax ku mu ci ñoom rek woote na bis ci ay tool wala njàngum kaamil wala laylatul qadri nga fexe ba liggéey ci loo xam ne. loola rek mën nga cee xettali ko tey ëllëg kon kenn mën dafay soxna may hmm, hmm. mu am nag jagle goo xam ne li may faral di wax ne ku ne ci doomi Sëñ Tuubaa yi da nga am sa jagle bopp goo xam ne sa morom fekku la ca waaye moom am na jagle goo xam ne moom képp képp képp moo ko am ndax kum ko nuróolee yi itam dana ci amaat lu mu am loo xam ne amoo ko hmm, ndax moom mook seeni Sohaybu bu yàlla daf leen a boole ci lu bari ñoo bokk weer wu ñëwee ci jamono dëgg ñoo bokk bis bu ñu ñëwee ci jamono ñoo bokki lim bi ku ci ne weeru ramadaan nga ñëw ku ci ne juróomi fan ci koor nga ñëw ku ci ne bisub ajjuma nga ñëw waaye moom nag mu gañee leen loo xam ne tawféex yi boppam la mooy mën nañoo waññi wala ñu ne mës sa am wala néew na lool lool lool ku am tawféex yi gane àdduna Sëriñ Tuubaa nangul la boppam téye la tuddal la boppam loolu soxna may rek moo oh, am. loolu tawfeex la. ñenn ñi maam Thierno Birahim ñenn ñi suñu am sutu jaxate ñenn ñi suñu busu am na ci sax suñu mataal bintu doo yaakaar na dan mhm. ñi ko doyoon ñëpp daal daane def mu defal ko boppam lu néew la woon mhm. ñaar moom néewaa na nga gis ku ko suñ bi def jullee ak tuddu mhm. loolu lu néew lu néew lu ko sëñ bi def la boo dee da ngay bi jullee ku borom muslim ak ñoo xam ne boo ko doon wàññi du mat fukki nit mm-hmm. mat sax juróom daanaka mm-hmm. waaye ñi tudd it boo ko doon wàññi duñ mat juróom mm-hmm. waaye yàlla baaxe na soxna su tedd si moo ko tuddal boppam dëgg tudd ko itam soxna Maymuna soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag digg mag alquran digg mag weeru koor kon sun borom moo leen lëkkale te kon day mel ne am na ngëneelul bisub ajjuma am ngëneelul weeru koor waaye am ngëneelul wetul maqoos ndax bis bu mu taseel kon nag muy jëmm joo xam ne yoonu murit amuñu payam li leen dese ci moom mooy ñaanal ko barkeelu ci moom sant ko gërëm ko ak ànd ak njabootam ci lépp luñ na ñu ne ci loolu rek lañ ko la rawatina njabootuk sëriñ Tuubaa gi kon nag noo ngi ñaan bu baax a baax yàlla taas la ci barkeem te yokk ay leeram te bàyyi fi ak njabootam te dëgëral leen kon nag mboolem lu mu yéene woon ci liggéeyal sëñ Touba ci bokk gi ak ci diini ji ak ci Touba ak ci yon nga ànd koog ñoom ñu def ko ni mu ko bëggee te mu nangu nangu. may mun a tooy sang bi gën fonk li gën maay taxa gën moo dat lu xadar